jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel fii ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew seen site internet 24actu point com fépp fu ngeen mën di nekk ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen dalaat ak jàmm ci seen beneen numéro sur la question ñu ngi fii nag tey ci résidence Khadim Rasoul bi nga xam ne moom moo nekkee ci euh, Daaru Marnaan euh, fas yéene ànd ak yéen ci li nga xam ne moom moo jëm ci congrès bu daayira wilaya bi nga xam ne ñu ngi koy jàpp amal le 26 27 ci weeru janvier bi nga xam ne nii ci la ñu nekk daayira wilaaya nag di daayira bu nga xam ne nii kenn dootu ko présenté ci yoonu murit ngir liggéey bu am solo bi nga xam ne nii def nañu ko fi euh, yaakaar naa ne bu ñu tuddee congrès xel yëpp day dem ci euh, daayira boobu li ndax bokk na euh, ci kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo njëkk amal xew-xew yu ni mel fii ci réew bu Sénégal rawatina ci yoonu murit ngir lu jëm nag ci waajtaayu bés boobu tax na nag ñu fas yéene séq gi taay waxtaan ki nga xam ne moom moo di Serigne Cheikh Fall Taïf di kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gàlloo di lépp lu jëm ci commission éducation et culture daayira wilaaya bu ñu waxee éducation ak culture nag dafa nekk ñaari pàcc yoo xam ne ni yu am am solo ci biir daayira wilaaya la kon laataa ñu dugg ci biir waxtaan bi rek dañuy bàyyi Serigne Cheikh mu nuyoo ak mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu sànn Serigne ñu ngi lay nuyu d'abord. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh soxna si ñoo ngi lay nuyu te jël jaajëfal bu baax a baax ni nga ko waxee rek ñu teew fii ci Darou naan ngir wàccaayu congrès bi congrès ni nga ko waxee rek ku ko wax xam ni liggéeyu wilaaya ak ab taxawaayam ginnaaw bi ñu jël ci nuyu bi nag Cheikh Ahmadul Muntaxa Cheikh Ahmadul Mokhtar ak mboolem njaboot Cheikh Xadim gépp ak mboolem jullit yëpp sëñ Abdourahmane ak sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo jiite fédération bi. xam naa ko noonu ko waxee rek ñu ñëw fi ngir nekk ci wàccaay woowu mm, incha allah. Serigne Cheikh sans xam naa dañuy dugg ci biir euh, waxtaan bi euh, daayira wilaaya euh, sànq ni ma ko waxee bokk na ci daayira yi nga xam ne ñoom ñu njëkk a li nga xam ne moom moo di congrès di ay yoo xam ne nii ndaje yu am doole yu mag yoo xam ne mbooloo mu takku yu yaatoo yaatu yoo xam ne day jëmale kanam li nga xam moo di société bi rawatina bi nga xam moo di wilaaya congrès bi mooy seen ñaateelu édition. waaw soxna si congrès bi mooy neuvième édition maanaam mooy juróom-ñeenteel bi yoon mooy congrès bi. congrès noonu ko waxee rek euh, muy feeñal liggéeyub daayira bi nga xam ne mën ngaa wax ni tey mooy ndaje mi gën a mag ci daayira bi ndax suñu waxee daayira man ngaa tàmbale ci vingt cinq personnes jóge ca dem ci euh, section sous section comité directeur euh, ni ñu koy waxee conseil fédéraux ba na ngay àgg bureau fédéral kon loolu mën a naa wax ni mooy ndaje mi gën mag bu fekkoon ne dama ko doon leeral ñi nga xam xëy na ñoo duñ ko mën a xam waaye tey mën ngaa wax ni daal mën ngaa wax ni notionum réew ni ngay waxee ab commune wax ab arrondissement wax ab préfet. administratif. ok waaw mi nga comme noonu rek la mel ba ci président xam nga président buñ koy fal dañ koy fal cinq ans léegi cinq ans nag bu jeexee ci la maanaam ji jeex ñu éri érilaat ñeneen ngir ñu mën a waaj a mën a waajalaat liggéeyi loolu kon congrès mooy dañ ñoo faloon cinq euh, juróomi at 2013 pour am ay joxoñ yu ñu jox mbooloo mi. bi jëmee ba juróomi at mat nag ñu war a dajawaat nag càmbar juróomi at yooyu liñ ci joxoon lañ lañ ci def ak lañ lañ ci defut ak liñ ci defut lu tee ñu def ko daal di tànnaat ñeneen ñoo xam te ne bii ñoom it mën naa am ci ñi ñu tànn la ñuy tànnaat mën naa am ñu tànn ñeneen ñoom nag xalaat ay yoon yi fii ba 2024 nangam ak nangam ji liñ bëgg a def mais ci biir juróomi at yi xam nga moom mandat bi rek moo juróomi at mais conseil fédéraux yi nga xam ne lañ ciy na ñoom a ah, ah, at mu jot. ñoom dañuy daje di xool xa xàll yi ñu xàlloon fan la ci mbooloo mi toll bu ajee soñ ñu soñu leen bu fekkee ñin tànnan ñu war koo defal dafa am ñu ci am gàllankoor ñu changé leen ngir waaye duñ duñ ba juróomi at yi rek ndax fi ne booba waa kon mën naa am koo falal moo war a liggéey mais juróomi at yëpp moom moom ci gàllankoor mais bu ko fekkee nag juróomi at yi nag buñ ci egsee ci la ñuy na nag ngir càmbar liggéey bi xool nag liñ xàlloon lépp lan lañ ci def lu ci avancé lu ci avancé wut léegi li ci avancé lu teem avancé ñu xoolaat nag yeneen naal yu ñu defaat war a wutiwaat incha allah 2024 euh, euh, nga xam ne kon loolu mooy maanaam mooy sababu su congrès daal ci gàttal. Euh, yéen ñi nga xam ne yéen a gàll lu jëm ci wàllum éducation ak culture ci biir daayira bi juróomi at yi nga xam ne weesu ngeen ko lan ban bilan nga ñu ci mën tënkal. waaw xam nga soo juróomi at yi moom yiñ ci jàll wax dëgg dañ ci sant yàlla bu baax a baax ndax ko wax éducation culture sax ma fa muy njëkk dem mooy ci jàngale ak yar suñu waxee jàngale nag ñu bari seenum xel dana dana dem ci njàngaleem diine waaw kay mooy li gën sax waaye nag ki sosoon liggéey bi dafa waxoon ni xam-xam xaw ma bokku ca ci it suñ borom bi mu waxee suñ borom bi waxee aadama ni kon na nga na nga dama dama laa xamal xam-xam yëpp néew koon dama la xam-xamu diine mais xam-xam yëpp rek ndax xam-xam amul bu ci amul njariñ xanaa kay na la ci nit ki jariñoo la waaye nag bu ñu waxee bii moom li ci ëpp solo dëgg-dëgg lim mu gën a particularité mooy wàllu yar yar na yarub diine waaye nag dañ koo jiital waaye mboolem xeeti yar yi nga xam ne maanaam dañ koo soxla ci doomu aadama ak mboolem xam-xam yi nga xam ne day jëriñ doomu aadama ci dundam maanaam da da ko ëmbale da ko ëmbale waaye nag suñ xoolee at maanaam juróomi at yi moom wax dëgg dañuy gis ni liñ xàlloon am nañ ci satisfaction bu baax baax a baax ci it incha allah ku jàng rapport bi nga xam ne ci lañ ci lañ taxawoon 2013 nga ñu jàngat bi ñu bëgg a jàng incha da nga xam ni wax dëgg am na avancement bu baax a baax ci côté yëpp am na avancement ci côté yëpp ne ci côté xale yi xam seen diine ci wàllu école yi mais ci wàllu njàng mi jàng ni ki di ko ñaanal doomu adama yi ak yeneen xeeti xam-xam yi nga xam ni dañ koy jàngale ci biir yooyu moom wax dëgg dañ ciy sant yàlla wane ni donte amuñ ci 100 pour cent waaye nag avancé na bu baax a baax a baax par rapport ak boo daan xool congrès yi daan jàll xam nañu bii moom moo résultat rawatina nag sax nag ci wàllu njàng moom ak yar suñu waxee njàng nag dañuy waxaale ndax boo jàngee ba pare ca yaruwoo du am du am njariñ mais boo yaroon doo nga ci jàngoo du am njariñ moo tax dañuy boolewel ñaar yëpp dañuy jàngal nit ki ba xam waaye ñu di ko yar yar bi nag mi ngi tàmbalee ci yarub diine di ko xamal lan mooy diineem di ko xamal nan la ñuy defee nit ku yiw na muy defee nan lay waxee ak ñàkk koo def li muy jariñ mais def ko nan la amee njariñ ak di ko jox ay bind ci ñi jiiti woon Seydina Mat ak waa ay waa këram waaye Cheikh Khadim ak ay waa këram nañ leen tegoon ci ab yar ak yar nañ la ame njariñ nga xam ne ñaar yooyu la ñuy boole boo ko defee nag mooy mooy maa tax nag résultat am bu baax baax baax waaye daal ci tënk moom suñ doon xool bilan bi moom ci entre 2013 euh, ba 2018 bii ñu dugg 2019 ci côté boobu moom wax dëgg am nañ satisfaction bu baax a baax. Hmm. ndax euh, daayira wilaaya ak commission euh, éducation ak culture bi dañuy dugal seen loxo ci école yi nga xam ne Serigne Cheikh Mbacke daf ko fee bàyyi woon. waaw ah kay dañ ci dugal seen loxo sax parce que mën ngaa wax ni seen liggéey dëgg dëgg dëgg sax loolu la ndax Serigne Cheikh dafa jugoon ngir jàngal doomu jullit ñi ak yar leen. waaye ci kaw buñ mënee ak buñ mënut léegi nag lool loolu xam nga mbir boo ko sosee ca bëgg lu ko gunge ca bëgg mu taxaw danga nga nga sos lu ko gunge kon daayira mii mën nga wax dëgg-dëgg li tax ñu taxawal ko dëgg-dëgg bokk la ci bu nit ñi dee jariñoo si maanaam bu ci ñi dee jariñ seen bopp mais école yi fi nekk ñu koy jàppale waaw ndax fi ne tey jii nii école soo ko waxee da ngay wax ay maître ay da nga wax ay enseignant mais ñoom it ñu war a am ñu leen war a ñu leen di war a fay weer bu weer dee donte ni élèves yi jàng amuñ luñ fayee léegi loolu du tax mukk ñu ne kon bu leen jàngaleeti wala bu leen ñëwati ah kay léegi foofu nag fa daa daayira bay taxaw nag ci élèves yi nga xam dañoo néew doole maanaam amuñ ku leen fayal wala même bu élèves yi bu fekkente ne maam bi ñu xoolee limu élèves li ñuy fay mun dafay enseignants yi léegi nag suñ juróom-juróom yi ak suñ téeméer téeméer yi te la ñuy jël en plus da ci tabaxaat ay école nga xam ne kon tey da nga wax ni dëgg-dëgg liggéeyu fédération bi la ci ëpp mooy taxaw école yi yokk école yi. ci li ñu dajale waaye en même temps di dimbale enseignants yi nga xam ne sax ni ma ko waxee ni incha dem ci ci ci ci ci ci rapport bi ren jéego bi ñu def ci euh, fànn boobu nga xam ne enseignants yi nga xam ne tey dañuy jàngale ci nguur gi dañuy am IPRES dañuy am leneen mais suñu initiative ak suñu jéego àgg na ci loolu di leen fay fay gu baax mais fas yéene leen a lu mel noonu ba nga xam ni ñiy jàngale ci école daara yii nii duñ ñëwee ñu ne ci nguur gi. ca loolu nag dara dara du ko def lu dut fédération bi li ñuy dajale euh, foofu rek maanaam fa lañ ko mën a jëlee. donte nag ni élèves yi danañ fay dara mais la ñuy fay moom mu leen a satisfaire mais nag li mbooloo mi dajale nag ca loolu nag te lañ te lañ leen di mottali waaye di leen di yokkal ay classe ak euh, di ci dolli euh, yàggul dara sa fait même pas deux ans defoon naa benn reportage ci école sëñ Cheikh Gaïndé Fatma bi nekk Darou Khoudoss ak Tokkoor ba mais ci biir commentaire damaa gis nit ñi di réagir ñu ci bari ci ñoom bitim réew lañu nekk mais dañu ne école yi fekk sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma bàyyi woon jógewu fa. waaw xam nga. soo si foofa maanaam ku xool par exemple sëñ Cheikh nim lim sosoon maanaam nga xam ne par exemple tey nim su fekkoon mën na ko jox misaal rek bu doon sëñ Cheikh dafa créé woon cent ñi ko wuutu bu fekkee dañoo créé dañoo créé cinquante wala quarante day mel ni jóge wu fa mais nag ñun xam nañu am na avancement donte nag par rapport moom maanaam nam ko sosee woon yokkuwatu lu toll maanaam lu toll noonu mais am na avancement bu baax a baax a baax ci avancement bi ñi fa nekk di jàng ak ñi fa nekk di jàngale ak ñi koy saytu. ñoom xam nañ ko mais ñi ñi gis image nag ñi gis image dañuy jàpp ni amul avancement mais am na jéego waaye nag xam nga tey bu fekkee ne da ngaa jàpp ne at mu jot dama war a évoluer sans wala yu mel noonu ma di ko séntu foofu dama ko gis mais xam nañu xel am na avancement xëy na dëgg-dëgg dañ dañ jàpp ne dañuy amee avancement bu baax a baax a baax accélération des na waaye xam nañ ni euh, suñ gisee diggante 2013 ak 2019 lim fi évalué. incha allah bu fekkente ne par cinq ans yu nekk am euh, mi ngi koy def jàpp nañ ni moom fii 15 ans wala lu mel noonu maanaam dana avancé bañ jàpp ni xanaa sax suñu seex créé yu ko nga xam ni kon loolu moom xam na ñi parce que li ñu réalisé ci diggante 2013 ba 2019 ci école bi li ci avancé chaque cinq ans bu avancé noonu te te loolu la ñu fas yéene parce que teg nañ yoon wi ñu ko war a jaar ba pare te jàpp nañ chaque cinq ans ni mu avancé nii day gën yokk kooku kon ku dem ba ci kanam tuuti soo la nga doon jàmbat ni avancé wut da nga fekk avancement bu baax a baax sax te donte malgré sax fi nekk nii mi ngi avancé nag moom parce que ñi ciy dund ak di ci nekk a bi éducation ak culture seen budget ci juróomi at yi ndax mën nga ñu xam nga euh, suñ budget xëy na mën naa parce que day day ñaari côté parce que day day day day dafa am mbirum conseil d'administration la. juróomi at yi liñ def ci école yi lañ fey ci enseignants yi. liñ tabax ca loolu incha bi euh, suñ ñëwee ci dimanche ji rek dana leer bu baax a baax a baax a baax loolu mooy beneen côté bi mais dafa beneen côté boo moo jëm ci ndax fi ne tey jii nii euh, du du école bi kese de mais dañuy jàngi kaamil dañuy jël ay téere di ko dimbale ci sëñ daara yi maa di leen ko dimbalee mais jël ay téere xam di ko dimbalee ci ñi nga xam ni dañoo yitewoo xam-xam loolu lépp nag fi ne tey soñ ko boole nag ci la ñuy boole muy bid maanaam muy muy maanaam muy benn budget mais tey ñaare fi boo ko boo ko xaajale woon day am boo bi dafa ñu ci wàllu école yi mais am leneen loo bi nag njàng mi ngay jàng ak euh, journée way daw lu yeeg ak ci yooyu da nga ci wut ay téere mais dangay ngay dimbali nit ñi même même élèves yi baal xel ni dañ leen jëndal ay maanaam dañ leen di ci ay kaye maanaam ni leen di dimbalee nga xam ne tey mën école bi suñ la waxoon ñaata nombre élève moo ci ne yom si duñu fay lu bari la mais chaque année dañuy jënd ay fourniture di ko dimbalee élèves yi léegi loolu mooy beneen côté bi mais beneen bi nga xam ne nag ñoo jëm ci njàng mi xasida yi njàng mu alxuraan mi ak yeneen loolu it niñ ñuy def ci ni ñuy def côté booba moom noonu lañ ca def wut ay téere di ko jàng waaye daara yi nga xam ne dañuy dañ koy teewoo dañ leen di jël euh, di leen ci dimbale mais xasida yi ak téere xam-xam loolu nag xam naa ni incha allah soo ko bu fekkee boole ko nag mu nekk benn euh, budget boo xam ne bii suñ ko tuddee moom jàpp naa ne ku déggoon résolution bi amoon 2013. suñ la nee école bi avancer wut wala déedéet da nga ne ah kay da nga xam ne na bu baax a baax a baax te loolu incha allah ku ci ñëw euh, bu samedi ak dimanche da ko dégg bu baax bu baax da nga xam ni fa lay gën a leeree sax ci avancement ba ak nag li ñuy dimbali ci ay sëriñ daara ak li ñu ubbiwaat ci ay ak li ñuy dimbali ci ay élèves loolu kon bu baax da nga xam ni am na avancement bu a baax. Euh, xam naa boo moytuwul de avant dernière question bi lay nekk congrès bi dañ daan seetlu dañ ko daan décentraliser su ma Euh, lim daan génn Touba bëri na euh, ren lan moo tax ngeen tàmmuwaat dëkk bi. waaw xam nga euh, su fekkoon damay damay la dama par exemple bureau fédéral rek moom mooy daje xalaat fan lañ koy defee parce que congrès bi def nañ ko Njaareem def nañ ko Dakar def ko Touba kon par exemple ñoom buñ xoolee rek circonstances yi ñuy am bañ nañ bi mais moom moomu lañ ko fenn rek moom parce que day tourné parce que fii ma la wax nii lépp. def nañ ko fa moom décentralisé boobu ñu koy def ba léegi day continuer moom day continuer duñ ko def du ceegin Touba moo ko moom parce que fii ma wax nii fenn fu ne def nañ ko fa benn yoon wala ñaari yoon. Mhm. Euh, congrès bi économiquement lan la mën a indil Touba ak réew mi ak lan la mën a indil membre daayira bi nga xam ne dafa bokk ci wilaya. waaw xam nga bu dee réew mi moom dana dana ko économie bu baax baax parce que xam nga waxee ni mooy ndaje a mag nga xam ne kon doon ci réew mi mais même bitim réew Afrique Europe dañuy jógee fañ nekk di ñëw ci congrès bi kon loolu par exemple da wax ni dana mën a leen indil tuuti lu mu néew néew rek dana ko indil réew mi mais bu dee biir Touba bi ñu koy defee da nga daal xam ne rek day ko ndax nit ñi fu nekk daañu am daañu am ay dalwaay danañ lekk danañ naan te fa ñuy jógee transport oto moo lañ fay jëlee kon lu mu néew néew néew rek dana am économie bu mu indil réew mi boo xam ne bi moom donte ba waa réew mi duñ ko yëg mais parce que kuy jógee ku nekk da ngay paas soo dikkee da nga lekk da nga naan da nga utiliser courant da nga def lu nekk loolu lépp nag. xam nañ ni saa bu amee rek état bi mi ngi ciy gagné mais même waa Touba dañ ko yëg bu baax a baax a baax ba ci sax mën naa wax ne tey ñiy jaay ndox sax fi ne wala ñeneen dañ yëg ni congrès am ba dañ ko yàkkamti parce que seen chiffre seen chiffre d'affaires da ne yaa ngi ci côté garage bi ñoom it dañ ciy yëg daal nga xam ne moom Touba dana ko yëg moom dana yëg en même temps état bi dana yëg ci wàllu culture lu waajal ngir congrès bi le 26 27 bi ñu jëm waaw culture bi xam nga moom ren dëgg-dëgg mooy lii mooy lii amal euh, njariñ am réew sëñ seex taxoon mu formé ko muy wàllu jàngale ak formation sëñ Cheikh nan la ko gisee woon. léegi thème boobu lañ bëgg a jël bëgg koo traité ngir nit ñi man cee gën a jariñuwaat gën a bëggaat xam-xam en même temps gën koo bëgg a jox it wax sëñ Cheikh damay wax naan nit ki ma saa bu amul xam-xam borom xam-xam moo koy war. saa boobu xam-xam rek borom xam-xam moo lay utiliser moom nag loolu moo tax mu teeloon caa jóg te nag xam-xam doon jàngale doon bu tumuranke nag bu tumuranke ndax moom dafa gisoon ni yi mi nekk ab journaliste tey jii li nga def nii tey tey fi ne boo fa jóge woon war nga maa dem ci biir daara ja di fa jàngale alxuraan ah kana ca maanaam sëriñ ki ka nga xam ne maa ngi ci biir jumaa ja di fa jiite ajuma war na mën a ca aéroport ba di joxe ordre avion yi di yéeg ko wàcc moom xam-xam boobu la ca ñi mu ñëpp côté côté boobu ci leen formation ci leen formé woon da ngay xam sa diine ba mu mat sëkk waaye da xam adduna ba mën caa jariñoo léegi nag ten boobu nag lañ bëgg a andiwaat ngir maanaam gën koo développé ngir nit ñi mën cee gën a jariñu waaye nag fàttaliwaat dénkaanam ya nga xam ni da koo jaajëfal sëñ Cheikh Fall tey fi yan kàddu ngay tëjee waa di leen sant eh, di leen gërëm rek di wax ni comme congrès bi daal eh, donte ni ñoo ko organisé mais dañ cee woo ñëpp ndax sëñ Cheikh daf ci jubaloon ni li mu yor comme dafa am njariñ daa bëgg woo mbooleem ba ñëw kum invité loo ci gis mu am njariñ nga jël ko boo demee jariñoo ko loo ci gis ni jàpp ne amul njariñ nga bàyyi kon moo tax ñu ci woo ñëpp nga xam ne daal defuñ ko pour ñun mais dañ ko def ngir jariñ ñëpp ku ci dikk rek loo ñu gis lu am lu am njariñ rek jëral yóbbu jariñoo jëriñoo sant sax mais loo ñu gis ni amul njariñ léegi bàyyil mara baal ñu fi kon ñoo ngi leen sant baax di leen gërëm di woo ñëpp rek di ñaan ñu di ñu fekk kook alhamdulilah bisimilah rahmaani rahim àggale ko alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, mu nekkoon euh, Serigne Cheikh Fall euh, Taïf yore bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gàlloo commission éducation et culture ci biir daayira wilaya ni leen ko ñu jàpp ko le ci weeru janvier bi nga xam ne fi la nekk fii ci résidence Khadim Rasoul bi ci nekk ci Daaru Marnaan kon ñu ngi leen sant di leen gërëm waxtaan bi duñ ko yemale fii daañu àndaat yeneen waxtaan ñeneen ñoo xam ne dañ cee gàlloo ñu ngi leen sant daje beneen yoon jërë ngeen jëf